2021. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. boyogodde osongo baliwo Thank you. Bambaly Seck ak famille ak waa këram ñu ngi noonu di daal di ñëw jaale si métti métti boo xam ne kenn mënu koo natt lu métti moom métti na kenn mënu ko natt gis nañu Mandiaye Seck moom it mu ngi ci biir gis nañu maam waala mu ngi noonu moom it ñu ngi noonu taxaw mu nekk tiis ak naqar loo xam ne tey fii ci réew mi rawatina nag fi nga xam ne fii la ñu dëkk fii la yàgg di fee lu baax di kër gi nga xam ne mooy kër Ndeye Fatou Diaga tamit kër Papa Thione ginnaaw bi nga xamee ne borom këram boobu ba mu jógee ak na léegi. Diaspora 221 Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.